ndax dafa am ay nit yu ma cocaine trafficker from a Mexican drug cartel maanaam moom ak benn cartel mexicain ñoo doon waxante drogue he agreed maanaam moom Andrew Fahy dafa d'accord pour fay agent yi he agreed to pay seven hundred thousand dollars presque un million de dollars payment to allow traffickers to use BWI ports with an undercover informant charge filed in the US Andrew Fahy dafa autorisé ñu utiliser pooram pooru dëkkam pour trafic fa head of government il est élu à la tête du gouvernement was arrested by the US Drug Enforcement Agency muy DEA ñoo ko arrêté agence d'enforcement de drogue à Floride alongside senior BWI port official ñu jàpp aussi benn nit boo xam ne moom moo doon chef port bi Olivine Maynard ñu jàpp ko moom ak Olivine Maynard moom Andrew Fahy ok a third person Kadi Maynard moom tamit jàpp nañ ko ak Miss Maynard's son was also arrested doomu Ménard bi aussi jàpp nañ ko on Thursday in connection with the undercover DEA case xam nga kan moo nekkoon ci tetu drogue boobu de El Chapo Guzman maanaam jaaykatu drogu mexicain bu mag a mag boobu ngeen xam El Chapo Guzman xam nga lu Andrew Faye wax nee na ba senegal la jóge daf ci tudd benn officier benn nit bu kawe ci senegal xam nga kan lañ ci tudd seen futur président Amadou Ba moom la Andrew Faye tudd ci diilu drogue bu mag a mag xam nga lii man dafa am lu ma jaaxal parce que bi mu amee média yi dañu bàyyi mu jàll ndànk média sénégalais yi tuuti lañ ci bind rek ñu bàyyi mu jàll parce que booba xamuñu kan la ndekete Amadou Ba moo nekkoon à la tête de ce deal drogue ba Sénégal la jógee jaar US Virgin Islands mooy kilo drogue yu bari yi ngeen di dégg ay deux tonnes trois tonnes imaginez trois tonnes cocaïne benn kilo cocaïne presque vingt mille dollars américains lay jar une tonne de cocaïne c'est mille fois vingt mille dollars vingt mille dollars fois mille ñaata la million millions de dollars la une tonne de cocaïne vingt millions de dollars lay jar donc dix tonnes de cocaïne xam ngeen lu muy jar deux cent million de dollars xam nga deux cent millions de dollars mooy lan deux cent million de dollars xam nga mooy ñaata cent vingt milliards de francs cent vingt milliards de francs CFA mooy deux cent millions de dollars pour ngeen xam donc bu leen yaakaar ne drogue bii di jaar Sénégal caaxaan la lu rëy rëy la mais léegi ñoom pour ñu mën koo jàllale dañuy def gouvernement ak gouvernement imaginez le président premier ministre valeur président la am imaginez le premier ministre buy dugg ci u drogue nga defee ne kooku dina dugg ci ay drogue cent mille francs CFA ki deux cent mille francs CFA non kooku du dugg ci loolu kooku buy dugg ci drogue ci ay milliards lay dugg waaye yàlla mu dara tawul benn autorité sénégalais bu mag moo ma woo maa ngi koy nuyu de passage sama xarit bu baax ku baax autorité bu bu sénégalais bu baax mu ne ma mais Tunkara ma ne ko waaw mu ne ma dama lay jox lii te bul tayal ba ne ko waaw mu ne ma dinaa la sax dimbali parce que dinaa la jox tuuti ci enquête bi ma ne ko waaw mu ne ma drogue ba ñu jàppoon Miami autorité sénégalais boobu ñu doon tudd ma ne ko waaw mu ne man du ma la wax kan la dama bëgg yow nga dem defi say recherche mais les recherches sont tellement faciles que j'invite tout sénégalais déglul les journalistes sénégalais je vous invite bu leen ma ne amu leen information bi Pape Madiambal quotidien ba bindoon na ci waaye ba mu bindee ba ñu ko joxee wàllam la ne patt noppi pourquoi on vous dit que l'autorité sénégalaise mi ngi ni Andrew euh, premier ministre Andrew Fahy mi ngi ni onvou vous dit que l'autorité sénégalaise Madiambal Diagne quotidien bindoon na ko mi ngi fii on autorité sénégalaise bokk na ci ma Madiambal Diagne ba mu demee xam ne mi ngi nii le Sénégal mi ngi nii Mohamed Gueye par Mohamed Gueye la senegal se retrouve mi ngi nii boo leen xoolee mi ngi nii mi ngi nii le Sénégal se par Mohamed Gueye la Sénégal se retrouve mêlé à une affaire de drogue et d'armes lourdes d'armes lourdes du drogue rek xam nga mbir mi bi ñu jàppee bateau drogue yi dañu ne drogue bi saa buñ ko jàppee dañ koy détruire non non non non non ñoom duñ ko détruire les grandes autorités sénégalais dañuy jël même bateau boobu dof-dof lu dugalaat ko ci beneen bateau corrompre corps bi muy wàcc léegi nag comme tey mexicains yi dem US Virgin Island jëlee ko foofu. El Chapo Guzman il est en prison aux États-Unis à vie du ma sa génn kaso du ma sa génn. il ne sortira jamais en prison Andrew Fahi kan la ci tudd Amadou Ba Amadou Ba votre candidat présidentiel du Sénégal est mêlé dans une affaire de drogue la plus lourde dans l'histoire du Sénégal ici aux États-Unis Amadou Ba la ci tudd ña ngi ni dem leen ngeen xool ko allez faire vos recherches bu kenn ñëw nag daw mu ne pour ma lire ko en français par Mohamed Gueye le Sénégal se retrouve mêlé dans une affaire de drogue et d'armes lourdes qui est en cours de jugement à Miami aux États-Unis à l'heure actuelle il s'agit de l'affaire impliquant le premier ministre des Vierges britanniques monsieur Andrew Alturo Fahy ce dernier a été interpellé à l'aéroport de Miami où il venait de conclure une transaction pour le transport de la drogue aux USA. Moyennant un paiement de 700 000 dollars américains en espace, l'homme ne venait pas qu'en vérité celui qu'il pensait être un trafiquant de drogue de cartel mexicain de Sinaloa était en réalité un agent de l'américain de lutte contre le trafic de drogue la drogue le, la Drug Enforcement Agency DIA au lieu de l'argent espéré il s'est retrouvé avec des menottes dans une cellule américaine dans l'entête du verdict de son procès ce qui rend cette affaire intéressante pour les Sénégalais c'est d'apprendre que lors des transactions avec ce qu'ils pensaient être des dealers, intéressés à profiter de sa position officielle au sein du gouvernement de son pays pour faire transiter sur son territoire de grandes quantités de drogue venant de la Colombie et destinée à être écoulée aux États-Unis en Amérique Et M. Fati a demandé à ses interlocuteurs de lui remettre de l'argent pour payer une dette contractée auprès d'un contact au Sénégal. Son contact était au Sénégal. xam nga tey dinaa leen wax benn secret bu ndaw Guinée-Bissau par exemple Guinée-Bissau bii ngeen di gis président